ובריחם נשיב לי הגדרת നുഷികനമ്മ ബർക്കിൽ ഹമ്മകൽ വയഫങ്ങനെ ചിലന്തം വല്ല ചിലെ സൂർസിബി ഷിസബീർ ദുലബയിൽ മു ഷിസബീരാ samai ya nyundau jigen wala khalebu wa munburu ni bude sinyambat wala silu bari lune uljam Nekke mooi ben, vorm bi rek mooi doxande خير